ñu ngi fa on se rappelle très bien Bougane ba ñu koy présenté wet ga joxe tey jii foofu est-ce que tey jii euh, njortoo ni xëy na euh, bañ insident moom moo am foofu moo tax nu def li nga xam ne nag moo di moo moo di benn forte euh, sécurité pour rek nu mën a saytu baax baax ñi fay dugg ak ñi fay génn. waaw non loolu ay mesures administratives la état day prévenir. su ma déggee ne yow yaa ngi menacé. wala yow nee nga di nga ñëw te mu nekk ay affaire politique. je prends mes eh, loolu moom c'est le rôle régalien de l'État évidemment dinañ barricader dinañ indi ay policier mais objectif bi mooy. Ah. que le procès se passe bien. lu ci am après ñu war a ñibbi dem ñibbi ki ñu war a condamné dem tëdd ki ñu tëj sursis mu dem ñibbi. Ah. jàmm amaat Tambacounda. loolu mooy objectifu euh, dispositif policière bi. il ne sert à pour un politicien. ngay ñëw di menacer ay policiers di xëccu ñoom parce que ñoom loolu bés bu ne ñu gis fa nit bés bu ne ñu jàkkaarloog lu mel noonu encore une fois moo tax aussi keroog Bougane la mu fa def. ak Barthélémy la mu fa def di menacer ay policiers ñooñu booy xool gisoo faale wuñ ko sax. parce que bés bu ne ñu taseeg yu mel noonu c'est leur métier. donc ñoom xàmmee wuñ kii politicien la wala kii personnalité wala et xam nga ñoom lan mooy seen rôle su procès amee surtout à incidence politique ñu fexe ba procès bi jaar ci yoon. suñu paree ku nekk ñibbi. Mhm. moo tax ce dispositif là ça s'explique évidemment nag su fa nit ña ñëwee bëgg fa indi xët-xët. comme ni mhm. may def rek wut buzz fay say nit pour ñu ñëw pour ñu ne ah am na ay nit. Mhm. am na ñu ko gëm am na ñu koy xeexal tax na nga indi say nit pour le jour ñu créer tole loolu moom su boobaa aussi rek y aura une réponse politique. Pastef nag bu leen kenn jaay xeex ak xuloo c'est ça le problème de Pastef bu leen kenn jaay xeex ak xuloo ndax ci lañ juddu. ci lañ màgg ci lañ leen nàmbatal aussi pastef moom jaay leen leneen xam-xam comme ñoom niñ doon def bi ñuy commencé. Uh-huh. parce que pastef bi muy commencé ay idée la doon défendre. ay principe uh-huh. Ousmane Sonko 2014 bi ñu créé parti bi ba 2020 débat d'idée la doon def. da uh-huh. doon opposé régime mu Macky Sall débat fiscalité entreprise croissance emploi des jeunes et loolu la doon opposé au camp de Macky Sall. Sonko mi ngi jël gatsa gatsa bi teg ko ci kaw. Mhm. man ci laa ko commencé dégg. mu commencé am sa discours guérira et j'étais d'accord mhm. parce que loolu lañ def Karim mu jàll. loolu lañ def xalifa Sall mu jàll. Mhm. man bokk naa ci ne ko boo seetaanee di jaay ay Macky Sall naan c'est républicain. on est dans un état de droit. la indépendant est indépendante. billaahi doo dem élection. bokk naa ci ñi ko ko njëkk a wax au départ waaw au départ ma ko gis nga xalifa noonu lañ fi defoon man ku ma xam-xam ne ci beaucoup écrit pour Khalifa. Mhm. j'ai beaucoup soutenu Khalifa Sall. parce que bi ñuy jàpp Karim Wade c'était le même schéma may dem di seetaani procès. Mhm. di ànd ak waa PDS parce que dama jàppoon na ñëpp ne nañ demande sociale la rek. Mhm. ñu ne nañ jàpp Karim mais bi ñu jàppee Karim après. on s'est rendu compte que ne affaire yu créé la woon au lieu que yow justice bi dem wuti ay preuves mais yow yaay indi ay preuves ci boobaa nag la ñun ñëpp jóg. te loolu ay question de principe pour ñun ay sociologue ñun suñu métier loolu la. alors bi ñu toppee Karim Wade ñu dem ba ci biir Karim Wade xamuñu naka la lijjantee ba génn rek génn Sénégal daw. man booba laa arrêté sama soutien ci Karim Wade. oui te loolu daf ma naqari quoi. parce que ñun ñu ngi ñafe naan lii injustice la. les gens négocient aussi. oui créé bi c'est pas normal. ñu jékki-jékki rek ñu ne ñu génn na daw na man looloo ma naqari woon si Karim Wade. ma arrêté sama combat mais bi ñu ko defee xalifa dama jógaat taxaw. j'ai beaucoup écrit pour Khalifa xalifa dama ko doon seeti ba prison te pourtant man a Khalifa amuñu ay amuñu ay amuñu ay relation politique de. Uh-huh. Khalifa sama xarit la sama mag la man mosuma am carte PDS musuma am carte PS. Uh-huh. mais xalifa sama xarit la ma ko doon seeti prison di waxtaan ak moom dama doon assurer pour lui le le soutien psychologique. Uh-huh. mais tu as vu dafa ñafe ba génn teewul Macky Sall laa enfoncé. sacrifié ko. xalifa li mu ñàkk politique yëpp Macky Sall moo ko ko teg moo tax bi ñu bëggee def la même chose nag ci Ousmane Sonko ñun ñëpp on s'est levé pour ne ko bañal. bul gëm état de droit bul gëm ne il est juste bul gëm ne c'est un président gàtt sa gàtt sa il ne connaît que l'argument de la force. Mmh. je me souviens bien le lui avoir dit dès le premier ne ko gis nga bés boo déggee gars yi ñu naan la justice indépendante ak yooyu doo ci génn. doo ci génn loolu moo motivé woon sa discours guerrier laa. nit ñi di ñafe pour la mu def Karim. na mu def xalifa mu man mu bañ ko def ko def donc loolu mooy histoire bi mhm. donc il faut que nit ñi xam ne politique dafa am sens mais c'est pas parce que Ousmane Sonko def na loolu rek mhm. ba réussir man Bougane damay def la même chose pour réussir mhm. un deux trois ngay copier di singer di def affaire yooyu sénégalais yi gis nañ loolu ba pare sàppi na leen li ñuy xaar ci buggaan mooy identité am lan la yow Bougane foo mënee yow sa identité lan la su baaxee rek ñun ñëpp ñu ànd ak yow suñu amee conseil conseil la suñu amee lu ñuy bind bindal la. suñuy amee lu ñuy wax waxal la. loolu rek la mais bu dul loolu amuñu benn kenn amut Sénégal benn problème ak Bougane. man miy wax ak yow man maa démarré ak moom la projet gëm sa bopp. fin 2016. Mmh. fin 2016 la Bougane ne dafay créer un mouvement citoyen. Mmh. mouvement citoyen la ko tuddee man la woo ma toog bureau mu ne ma grand loo ca xam ma ne ko ça dépend ci li nga bëgg. mu ne ma je veux créer un mouvement citoyen parce que déjà je suis dans le social affaire yooyu man ne ko ah bon ma ne ko noo ko bëggee da nga bëgg politique wala affaire yooyu ma ne ma non pas politique. Mhm. mais un mouvement citoyen pour social. fin 2016 ma commencé ak moom ma ne ko léegi qu'est-ce qu'il faut pour une association et cetera ma ne ko lii ak lii ak lii ak lii. Mhm. maa travaillé ci statut ak règlement intérieur yi. maa def profession de foi bi. Mhm. gëm sa bopp logo bi. mu defar ko man maa def distribution régionale bi. def distribution départementale yi. détaillé ak moom discours bi mu war a def. jour buy lancé mouvement bi ñu détaillé région bu nekk coordonnateur bi lan lay am ban pick lay am ban tablet lay am ñaata kii carburant la am te lépp maa ngi ko yor sama machine man nag moom ñoo commencé lépp. muy nit ku baax nag. te boobu politique taxul woon mu jóg. te boobu politique taxul woon mu jóg. heure bu ma ñëwee toog bureau ñu waxtaan su may ñibbi bu làmbee poosam la fa nekk lépp maa ko moom. honnêtement noonu lañ démarré man maa ko accompagner bi muy seeti Ahmed Aïdara Géejawaay uh-huh. man maa ko accompagner bi muy dem Touba di seeti sëriñ si man maa ko man ak Rosner ak ki nekk Horizon sans frontière uh, Sëy Boubacar Sëy uh-huh. ñoo ko accompagner Géejawaay ñoo ko accompagner euh, Touba ñu uh-huh. def le tour des familles maraboutiques ñoo ko accompagner Kaolack booba mi ngi lancé mouvement bi dem di ko yëgal nit ñi bi ñu ñibbisee nag man ma ne ko man sama mission jeex na macha allah bonne chance yeneen gaa yëpp nag ñëw après dégg moo bu bëggaan créer nu mouvement rek ñu ñëw xam nga. ñëw am na ñu fa ñëw sax dégg na man maa fa nekkoon di defar affaire yi. xam nga rek yëfi nit. exactement ñu yaakaar na si suis un membre clé de Bougane affaire yooyu commencé di ma xeex affaire yooyu mën na leen hee dem leen Bougane a ngi noonu. ñu li ñu waroon a def def nañ ko ba pare. muy ko baax ah ba discours bi mu waroon a lire ci benn combat ko waroon a liir bu Assane Ndiaye organisé mhm. mu doon entre yëg xaw ma kan ëmm seen ak xaw ma kan combat bi sax dañ ko mujj. renvoyé dañ ko mujj renvoyé. mais jour boobu la waroon a lire un très beau discours pour lancer son mouvement. Mhm. bon man man sama liggéey pare woon na ci. donc après la ay nit ñëw. xam nga rek nit affaire nit bëgg accaparer waaw bëgg accaparer lépp. ma ne mhm. leen man awma parti politique. man parti politique bi ma am pour man la. pour sama sama bopp la je suis un intellectuel qui prête le concours de sa pensée. Mhm. xam nga lan moo ma dugal ci politique léegi. deux mille vingt et un bi événement yi amee. looloo ma dugal ci ci politique ma génn ne carrément je soutiens l'action de PASTEF. bu ñu jëlee nguur gi aussi ma ne leen en tant que fonctionnaire je soutiens l'action de ce gouvernement looloo ma dugal foofu mais à part ça awma passé politique donc buggaan na def ndànk. na def très attention. fi ñu koy xaar du ay activisme. du ay toppandoo ay nit. du ay déplacer les termes du débat le termes du débat. c'est pas que da doon dimbali ji ay nit ñu téye ko du loolu les termes du débat mooy en face. te force de l'ordre ñu ne ko y'a président bi nekk fii te président fu muy dem dañ koy boucler bàyyil ba mu génn nga dugg il a refusé il a voulu chercher du buzz il a voulu faire de l'activisme politique di xëccoog ay policiers loolu lañ ko téye du leneen très important alors euh, doyen Alpha nan nga euh, mën jàngatee aussi euh, jàkkaarlooy bor dox ci juge bi ak ki nga xam nag mooy njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany lay jàmbaar